aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñuy seetaan ci rajo ak télévision bu Touba Zingoña dellusiwaat nañu fii ci daara Touba Zingoña ngir fas yéene waat indi benn émission boo xam ni ginnaaw bu ñu dalalee ki nga xam ne moo di Momadou Tall xaman ngeen ni waxtaan nañu ci li ab ci li nga xam ne moo di eh, sénateur bi amoon te gouvernement italien bi indi woon nii dañuy may ay kayit leeral nañ ci point yu am solo ci suñu kéemtalaay kartan bi yoon nag dañu fas koo xam ni mooy Cheikh Tidiane Seck jaar na fi ba tàyyi waaye itam ñëpp xàmmee nañ ko nga xam ne moom lay def ci réew mi dib syndicaliste moom lañ a yéene waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moo jëm ci kayit yi bu ñu mu defee contrat la ci aju yëpp nag ak la nga xam ni yëpp mooy tënku na kon ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu kayit yooyu la sëñ Modou Gueye loolu mooy bis bi nga xam ne moom la ñu waajal kañ lañ koy def nag muy samedi lañ fas yéene incha allahu eh, dajale ko ak ñoom kon incha allah sëñ Modou Gueye dañ lay bàyyi nga dugg ci li nga xam ne mooy thème boobu eh, ak ki war a dalal incha allah jërëjëf sëñ Maam Ngor ni nga ko waxee samedi lay doon le 18 incha allah fii ci daaray Touba Zingogne à partir de 15 muy Cheikh Tidiane Seck moom la dalal waxtaane lépp loo xam ne gannaaw séjour bu ko nit ki amee moo ca tegal ko koy defal ñaari waxtu lay liggéey ndax sañas na ko dàq sañasu ko dàq ndax sañ naa bàyyi ak lu mu ci mën doon daañ ko xam waaye duñ ci yem foofu daañ dem ak moom it ci li nga xam ne mooy liñ toll jamono la ku koy xaar ku muy am la koy joxe loolu ñoom incha allah samedi lay doon avec Cheikh Tidiane fii ci rajo Touba Zingonia Touba Zingonia samedi 18. jërëjëf ngeen leeral yi nga xam na ko ci loolee nag incha allahu ni ngeen ko xamee à partir de 17h 19h incha allah a bàyyi xel bu ko defee di ngeen tam incha allahu am na rek ni ngeen ko defoon ay question yoo xam ne moo xam si whatsapp bi ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane dana si jot

ci téléphone wala ci whatsapp nu ngeen ko bëggee fii lañ koy defalee ànd nañ ci nag yéen àndaat ceer yéen dañ ci del si waat ànd ak ci lépp fii lay doon ci Touba Zingonia télévision Touba Zingonia TV the best and first diaspora television